nee na léegi nag. Tiwaawan la ñu ñun kat ñu ngi ubbi jumaa yi waaye ñun ñii Tiwaawan la nekk. jumaa ji fi nekkoon. jumaa ji nga xam ni mooy al al jaamia al bu Mawlana Cheikh El Hadj dafa nekk ci chantier. al jaamia al atiq dafa nekk ci chantier fi mu nekk nii. xam nee na ñëpp it xam nañu loolu. xam nañu kenn xam nañu ni jamono jii kenn mënu faa julli. waaye sutura nag sutura yàlla am na. sutura si moo di. sutura si moo di. mi ngi fi. ku dégg zawal. demal ca jumaa jooju. demal ja julli ji. jumaa ngay wut. jumaa ngay wut. ngoog. jumat jumaa. jumat jumaa. mën caa julli ñaari jumaa. nee na ñaari jumaa. wala ñett amu fi. lépp lenn la. nee na kon nag. bu ajjuma jotee ñi dëkkee Tiwaawan te bëgg a dem juma bu ci kenn jaaxle na dem ñëpp julli ji ca juma sëñ Babacar Si radiyallahu an jumaa ji moo jumaa ji ñuy tabax ñoo néegu yàlla la te nangu na charte yi nga xam ni jumaa joxe na ko. ni nii la jumaa war a mel kon mën nañ fa jullee ji jumaa ah, ku fi jóge nag ku fi jóge nag eh, amee sa xalaatu bopp laa amee sa xalaatu bopp di wax sa waxu bopp di wax sa waxu bopp yaa ko la yaa ko waxal sa bopp waaye ñun tàqale wuñu dara waaye ñun day tàqale wuñu dara lépp benn lañ ko def tàqale wuñu dara nee am na nag ay communiqué yu jiitu woon yii waaye bàyyi koowul ci ñun. dañ ko dégg rek dañ ko dégg rek ci mbedd mi. ñu naan nee nañu. ñu naan nee nañu. ñi di téléphoné. nit ñi di téléphoné. demoon nañu ba kenn wuyootul. demoon nañ sax ba kenn wuyootul kenn téléphone. ndax kenn mënul xam ndax kenn amatul looy wax. waaye. waaye. loola. loola. du woon ñun du woon ñun nag. bii nag. bii nag. mooy bu njaboot gi yëpp. nee na ñépp ñoo ko bokk ñee ñu wuutu leen di seen ndaw waxal leen ko fa tabaarakallaahu ah, jaarale ko nag ci sëriñ Babacar Abdoul Aziz mu jotal ko maam Ousmane a ngi nii toog bu suñ maam Habib si radiyallahu anhu di sëtu Mawlana Cheikh El Hadj Malick na moom it noonu nee na ñëpp it wàccuwaay boobu la ñu am ñëpp ci sëtu ay sëti Maodo lañu nee na fa tabaarakallaahu ñu déggandoo ko ñun ñëpp ñaan yàlla nag mbas mii fi ne yàlla na ko fi yàlla jaarale jële ko fi dafa dooroon tuuti ñu di ko xeeb mu yokk mu dem ba mu yàgg wàññeeku tuuti buñ ko xeeb nañ ñaan yàlla mu jaare fi génn fi génn ci suñu biir génn it itam ci àddina bi nee na bu dee réewu tubaab yi bu dee ñeneen ku ne am nga droit yàlla sant la nga nga bañ nee na loola suñu yoon nekku ci sa diggante la ak sa boroom ku ci dugg nag mën nga taseeg yàlla mu ni la kii kat sama jaama ba muy moy nga di ko ŋàññ loo jote woon ak moom la mu doon def maa ko tere mu def ko sama digganteeg mooma yow lu cay sa yoon moo tax ñun daal li ñu préféré mooy maandu dañoo bëgg a maandu ci diggante jaam bi ak boroomam ñu daal lii daal mooy mooy suñu taxawaay nii lañ ko bëgg a doxale incha allah jàkka yi nag moom du jumaa jumaa bis la am jàkka nag waxtu la am bu waxtu jotee ku sa jàkka set mën ngaa julli ji ña ña ko jëkkoon ubbi nag sikkuñu leen de sikkuñu leen sikkuñu leen te duñ leen sikk mukk nag loolee loole ñu def moo leen doy ñoom ñu def ko ñun nag it lii ñu doy def nañu ko def nañu ko sant yàlla nag ba fii ñu agsi eh, yàlla ñu yàlla gën a sàmm yàlla gën ñu yàlla gën ñoo sàmm. Eh, ñu gën a raw. ñu gën a raw nag yàlla gën ñoo rawale. parce que ñi ñi ndax ñi dem. fi ñu dem. fi ñu jaar ba dem ñoom. jaar nañu fa. romb ko. te loola lépp yàlla na nag. nee euh, euh, grande mosquée bu Dakar. ñun wax nañu wax nañu démb. ak imaam Papa Samb mu yëg ni lii ñu mi ngi xew wax nañ ko ko dem tabarakallah